dafa bari fan yii lool fenn fu ci ne ay wax di fa jóge loolu nag ñu am tuuti luñ ci fàttali rek xam ne suñ borom dafa digle ci alxuraan innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum fa aslihu bayna axawaykum nag kon nañ xam ne jullit bi mbokkam dëgg-dëgg mooy ab jullit waaye lii bëgg di bëgg xew ci réew mi mën naa dem ba àgg foo xam ne kenn du xam fu muy fu muy jëm te alxuraan dafa santaane woon ne wattaqu fitnatan laa tusibanna allazina walamu minkum xaasatan waalamu anna allaha sadidul xiqam kon fitna aku ay yow mi ko taal bul xam fa muy yëm fu mu jëm kon nag ñi bokk dëkk ci am réew war nañu xam ni nañ sàmmonte diggante àqi dëkkandoo ki nga xam ne bokku leen diine sax taalaw ila kalimatin sawa sawain baynana wa baynakum alla na'budu illa llah loolu la ci alxuraan santaani waxoon na ci alxuraan itam ne wala tujaadilu ahlal kitaab illa billati hiya ahsan kon ñi nga bokkul diine sax dañ bokk ci ahlul kitaab booy def ak ñoom mujaadala na nga xam fa nga war a tàmbalee fa nga war a yem te def ko ci wax qawlu linnaasi husnan looy wax nga wodd ko ba mu rafet ndax mu amal njëriñ nit ñi kon loolu ñu ngi ci bàyyiloo xel nit ñi bu baax ñu xam ne wa ahbibil mumina lil imaani wa tubxi lil kaafira lil kufraani ki nga xam ne yéen a bokk diine lislaam nanga ko jàpp sopp ko ngir li nga xam ne ak doon na ko jullit yéefar biir bañ ko ngir lu mu doonu jullit walaw ataa ilayka bil jinaaya zaaka wasa ni ko sëriñ bi waxee jawharu nafis donte jullit bi daa te yéefar bi tooñu la kon loolu lislaam da ko santaane kon nag nit la mu wax ne moom la doon muy doon jullit war nay sàmmonte li lislaam santaane ci digg ba mu bokk jullit bi kon daal ñi ngi fàttaliwaat ñëpp ñu seet نيجا خمّن ريمون الله سبحانه بنادري موي نتعاون في ما اختلفنا في ما اختلفنا ونتحاور في ما اختلفنا لينجا خمّن ما سنجي جبوجي دعوجي نفخ بسامكو دعوجا لينجا خمّن أمنا نجي وترك يوخس على دفع بدعوجا واي نخمّن كر وخانت بنياو تبير تاريخي ولا تبير ديني يكل الإسلام تميوتو يا بابا ndax jëw su dañuy wax ne boo jàkkarloo nit di ko wax loolu jëw la jële naa nag mu fàdd la nga di ko wax te eh, ni ko Sëriñ Tuubaa misaali ci Jawharu Nafiis rek dafa wax ne xaqiiqatul xiibati duna rëy bi zikruka xaala saxti baxda la rëy bi ba ci biir mu wax ne am am na fu mu ko nettali ci biir xisa boo xam ne ci rasulullahi la amoon كقربان أم كان شيء أمها تومي شيء جلني وحنا هذه طويل زيلها فقط فسقطت مدخة لحم فحلف سلا عليه الله ما حاش الشرف بأنها لو هدمت لا بد من دخولها النار إذا الموت يعني كقرم بردك من أكيد يري يمسل فقد لون بيشن يعني الله رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول gàqal mu gëq lu lumbu deret génn muy médd mu ne ko rek tudd sa mbokkum julli fu mu néew noonu la demee ne ko loolu nag bu reesoon kon xasante ci biir jullit lu diis la ci biir lislaam tey xam ne ngëm dafa for ci nit kenn ku ci ne ni ko xaddis ba waxee rek kullu mawludin yuladu ala fitra kon nañ xam ne kenn ku ci ne la suñu boroom eh, bindi ci xam ne loolu nga nar gëm loola yàlla dogal na ko moo tax afa anta tukrihu naas xataa yakunu muminin nit ñi kenn du leen forcé ji faw nga gëm ndax lañ xas ba gëm boo doon wax ba déwén suñ suñu borom tudd ko it mën a fexe ba jëli ca kon nag sëriñ Touba am na lu ñu wattandiku la woon ci waxsaan wi wujj neewoon na li dal diggante nasaraan yi ak yahud yi na ngeen fexe bu mu leen dal yéen jullit yi mool waxaalitil yahud laysati nasara ala shay'in waxaalit nasara laysati yahud ala shay'in ñeene ñi nekkuñ ci dara ñeene ñi nekkuñ ci dara loolu werante la wax ne kenn xamut fu muy ak ji te amutu njariñ amutu mujj kon kenn ku ci ne la nga gëm sa morom gëm ko ne ko ñépp sàmm leen loolu mooy indi jàmm ci réew mooy indi jàmm ci fu mu mën a doon te jàmm kat fu mu amut nit du tara jàmm yàlla jàmm fu mu amut nit du tara lekk jàmm fu mu amut nit du tara nelaw falya'budu rabba haazal bayti allazi at'amahum min juu'in wa aamanahum min xawf ci jeexal nag li ma ci bëggoon a leeral mooy li indi wax ji mooy téere boobu yi nga xam ne euh, boroom xam-xam yi gën a siiw ci réew mi taalif ko muy Iba Der Thiam moo indi coowul téere bi jàngale histoire nag buñ ko dee wax buñ dee buñ dee jàngale histoire dafa war a tege ci dëgg ak maandu nahnu naqussu alayka nabahum bil xaqi alxuraan sax dafa wax ne bu ma lay netti ndax moom dama koy teg ci dëgg kon nag bu fekkente ne dañoo wax ne dañuy jàngalewaat histoire réew mi buñ koy def dañoo war a fexe ba teg ko ci ak maandu mooy tax mu am njëriñ ndax li mu war a jur kat mooy nit ñi xam seen démb xam seen histoire waaye nag bu fekkente ne dañuy dañoo wax ne dañuy jàngalewaat histoire réew mu jur fitna ci biir réew mi fenn fu ci ne ak daay dafa tàkk loolu amul njëriñ kon loolu war nañ ko xoolaat li nga xam ne nag moo ci fànn yoonu murit ndax man la ca des dama ci maandu ndax ñun ñëpp ñoo bokk luñ doon kenn ku ci nekk am loo gëm sa morom di loo ko sàmm leen kon mënuma dugg ci kéelam wax ak kéelam wax waaye li xam ne bind nañ ko ci Sëriñ Tuubaa daal njuumtee bari na moom loolu moom ka bind boo ko may nit waat ko dindi ndax nit doo ko soosal wala nga tuumal te am na ci yu garaaw yu ci ne yoo xam ne bu demee ba nit ñi xam ko sama naan defi ne ci biir réew kon loolu moom nañ ñëpp xam ne yoonu murit reconnaître téere ba li fii defaraat ko ndax histoire boo koy bind danga war a sukkandiku ci ay version yoo xam ne yu bokkut lay doon ndax bañ koy bind daayira Rawdu bi nga xam ne ñoo yor loolu ci wàllu yoonu murit bañ ko déggee kenn woowu lañ ca waaye ñoom ñoo yëglu wax ak ñoom ñoom ñu invité ca ndaje mu njëkk ma ñu dem ca yabal fa délégation ngir ñoom it bokk na ca lañ leen waxoon mooy nii ñu def ñoom na ngeen fexe ba def ko kër gi lii yëpp ci Sénégal na ngeen woo ñëpp kenn ku ci ne wax leen seen weesu ngeen boole ko dajale ko pour mu mën a doon lu wóor waaye ñoom nee nañ booba dañu mu jaxawaat ñoom dara kon buñ jekki-jekkee bind loo xam ne ci histoire Sëriñ Tuubaa dara am na ci yoo xam ne wérul wala sukkandikukaay wérul ndax naaj joxe benn fird bu gàtt rek am na ci benn ci ci masdar yi boo xam ne dafa wax ne Serigne Touba ci sareexa ak diinu ju set la nekkoon njëkk maam Cheikh Ibrahima Fall di jëblu kon loolu la muy junj ñëpp xam nañ ko te loolu téere ba ka ko génne woon ñëpp xam nañ ko euh, Serigne Maodo Touré ba coole bare ba nar a indi fitne ci réew mi da leen woo dajale téere yëpp lakk ko kon bu sukkandikuwaatee coole njuumte la. am na ca feneen yu bari foo xam ne dafa wax ne maam Cheikh Anta moom ak maam Thierno te maam Thierno yu bari bari na ca ak histoire yu bari loo xam ne bokk na ca ci wax it nee na Mamour Anta Sali tëntoon njàng dem moo tax Sëriñ Tuubaa génnoon dem jàngi te loolu di wut Mamour Anta Sali daaram bokkoon na ci daara yi gën a mag ci Sénégal dañ daa wax ne sax université na ndax léppoon ci réew mi ca yooyu jamono bu nit daa jàng ci barab day dañuy wax ne kii dafa fànnu ci naxu wala arud wala bayaan wala mantiq wala fiq moom na daaraam yëpp day faral jàngale moo tax dañuy wax ne université la kon ñi ñu ngi koy xamal moom ne ko bu fekkente ne bëgg na téere ba ñun ñu nongu ko te ni ñu ko koy diggale ci suñu biir tam nañ ko koy diggale ci kër diine yëpp ndax ñoo ci atte fenn fu ci ne na dem laaj leen ñu jox ko seeni mbind mu boole ko yam am ñu dugal ko ci biir topp ko bu téere bi leer bu génnee ñëpp xam ne amal na njëriñ Sénégal waaye nag mënee su sa bàyyi histoire ndax adduna day dox te mbind du fi dugg buñ ko bàyyee noonu bu continuer jëmbi jamono ñay dikkaat dana jàpp ne histoire suñu Tuubaa ndee demee kon loolu ñu ngi koy xamal ne ko daal ànduñ ci ànduñ ci tey ànduñ ci ëllëg li fi defaraatuñ ko ba téere bi def ci yoon loolu moom ñu ngi koy wax ci kanam àdduna sépp di ko xam bu fekkente nag nanguwuñ caa dellu si ginnaaw boobaa la Cheikh Abdoul Ahad Mbacke waxoon rek la waxaat ba fi tere ay tere am suñu gàntu ci Mbacke daa jox taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp ndigal nee bu ko bu fa kenn dem di fa jën ba bitig ba fay kon fii itam bu ko bu bu bu ci diisoo amut waxtaan amaat ci bañ déggoo ci boobaa itam dana ji responsabilité xam le ne téere bi nanguñ ko te ànduñ ci loolu daal laa amoon ci ci leer la euh, di sant ñëpp di gërëm ñépp di ñaan euh, yàlla suñu boroom dimbali ñu def jàmm ci réew mi def ak dal ci réew mi def ak déggoo ci biir réew mi def itam ak déggante ci biir réew mi ndax Sénégal kat même réew te ñu fi dëkk ñëpp ñoo bokk réew mi te suñu borom bi leen fi dajale moo xam ne tax mu dajale leen fi. te suñu kilifa yu baax yi fi jëkkoon sàmm nañ ko ba nëgëri lépp di rafet kon loolu lépp loo xam ne mën nañ ko ci góorgóorlu ji fexe ba sàmm ko ba déggoo ko di continuer ndax koo xam ne mënoo tuxu mënoo jóge fa nga dëkk kooko jàmm rek